bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu population Ngor yépp di jiital ci nuyo bi di la ci jiital Grand Jaraaf di di ci jiital imaam yi délégué de quartier yi ak ñi yor association yi ngànk les intérêts de Ngor di nuyuwaale tamit ki nga xamante ne moo yor les conflits jamono ji xam naa ne bari na liggéey ndax situation bi am ci gox bii di leen ma saw nag Grand Jaraaf ak imam ak population Ngor yëpp di ànd ak yéen ci li fi xew di ci lancer appel ci ñi jiite réew mi ci seeni décision bala ñu koy lal ñuy lal consertation ndax waxtaan mooy mooy cëslaayu jàmm ñu ciy lal yërmënde ndax yërmande moom tamit mooy caabi leadership ginnaaw su waxtaan laloo ba noppi ba ca des ñu fexe ba suñu waratee jël décision lal waxtaan nañu ko teg ci vision bu claire par rapport à l'histoire fa ñu bëgg sampee dara ñu xool histoire bi d'abord mm-hmm. naka la histoire bi tëddee ña dëkkee naka la seen deret di doxee lan mooy seen chaine de solidarité lan mooy histoire seen dëkk te ku ñëw xool architecture Ngor ni mu bindoo dangay xam ne kër yu ci bëri am na buntu sarale am na pénc am na buntu buntu sarale nga xool ne mag wax na ma ne jëllante ñam ak jëlante teraanga yàgg na ngor ci ci ci seen histoire donc loolu benn chaine bu dëgër moo am ci ñi bokk dëkkee ngor moo tax ma ne maa ngi apporter sama soutien ci lii nga xamante ne xew na fi ma gis tamit mag ñi taxaw ci ak sagesse bu mat sëkk ndaxte su ngeen ci taxawul ni ngeen ci waroon taxawee mhm. conflit bi dana gën a sori lii mais ngeen taxaw ci ak hauteur ak sagesse ak intelligence ak dignité mhm. loolu moo moo waral suñ tànk yi man nag euh, Grand Jaraaf mhm. ak imam euh, ginnaaw solu li nga xamante ne am na mooy ce conflit sur ce terrain de six mille mètres carrés diñaan ñaan état aussi mu gaaw ci trouver solution parce que problème bi mënul perdurer nii diñaan aussi ñu def ko ak dal parce que loraange bi bëri na ci te mënoon na ci bañ a am dëkk yu bëri li ko yëngal dafay bàyyi ko ci ay frustration mhm. frustration yi si kër lay tàmbalee dem ba àgg ci penc mi après law ci réew mi hmm. mel ni essence bu ñu sotti ci safara moo tax ñuy ñaan état dans l'intelligence de l'état ñu trouver une solution définitive à ce problème des populations de Ngor te ñu def ko aussi ak yërmande hmm. ba ca topp xam naa ñu ci bëri ci yéen ginnaaw bi ma nuyoo ñi ñu fi nekkal hmm. am taxawaay bu am solo ci di jàppale la coalition jàmmi réew mi ma samp ngir élection présidentielle 2024 yi ñu jëm te ñu am sañ-sañu bokk ci ndax sénégalais lañu am nañu plus de trente cinq ans et nous jouissons de tous nos droits civiques yi ñu permettre ñu participer à cette future échéance mm-hmm. beneen ba ca topp ñu wax ko tam lii tax nit war a bokk mooy nga mën a liir mën a bind euh, français mm-hmm. donc Grand Jaraaf mm-hmm. am naa projet mm-hmm. ci Ngor ndax man tamit bokk naa ci ñi ngeen yaatal ndax maa ngi dëkk fii ah, ci ci Almadi donc seen njaboot laa bokk ngeen yaatal nag yéen yéen a bëri de ndax su ngeen yaatalul woon kenn du leen fi fekk si mais yaatal may ngeen fi suuf maye ngeen fi ay soxna ay gan ñëw nañu fi ñu may leen suuf may leen soxna amaguñu woon lu ñu mën a déparé ci seen dund ngeen leen di yót dund jërëjëf jërëjëf jërëjëf monsieur On va beaucoup parler de vous. waaw waaw wala wax naa ko ko léegi waaw euh, fi ma yemoon mhm. dafa am sax benn imam benn aaya dans le Saint Coran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 mun nañu lemloo nit ay oomam mais kenn du ko lemloo xelam xel xalaat lay jëriñ te suñ borom aussi il parle aux doués d'intelligence dans le Saint Coran da nga egsi ñoom ñu nuyu la nuyu bu bu bu rafet mu wane mu wane cër gi ñu la jox mu wane aussi cër gi nga leen delloo donc ñu ngi lay nuyuwaat di la tatagal fii ñu bokk bokk dëkkandoo di rafetlu aussi sa taxawaay wax naa la ñoom egge nañu lu bëri ci sa taxawaay ci fii ci Ngor te su fekkoon ne amuloo indépendance bi war su ma fi ñëwee da ngay am ngàntu toog parce que fexe nañu léegi ba ñi nekk au régime tënk nañu ñi ànd ak ñoom soo nekkee ci opposition duñu la nuyu soo nekkee ci opposition jëm ci farata réew mi ñu beddi la takkal la loolu moo xew ci réew mi moo tax ñu war a tracer un nouveau Sénégal boo xamante ne yaakaar bi ak droit yi ñëpp ñoo koy tollalee ci réew mi fi ma yemoon monsieur le maire mooy ne am naa projet su ma amee chance jiitee Sénégal à partir du 25 février 2024 am naa projet bu mag ci Ngor yàlla nag borom yi xel yi lay waxal ginnaaw le commerce triangulaire bi amoon ndax démb dem naa gore gis naa la xew dama am solution pour tracer la solidarité triangulaire ñetti pàcc moo ko nar a tënk bi ci jiitu mooy le ministère des cultes et de la solidarité nationale beneen bi lëkkalee ak moom mooy le fonds solidaire beneen bi lëkkale ak moom te di remplacer le haut conseil des collectivités territoriale ak le conseil économique sociale et environnemental mooy le haut conseil pour la solidarité nationale li ma ci jublu ñu war ko tëral ci réew mi du ma wax les mécanismes yi ma ko nar a defee mais li ma ci jublu dëgg dëgg dëgg mooy ngor les populations ñi ngi màgg macha allah les familles traditionnelles mm-hmm. kër yu ci bëri tey ji solution bu mag mën na cee am mooy la construction en hauteur waaye def ko ci anam boo xamante ni li Ngor nekkoon muy un village traditionnel nekk tamit benn zone d'attraction touristique ñu fexe ba gën ko bàjjal ci réew mi loolu lañu am yéene construction en hauteur bi nag du yem rek ci famille yi ak seen i doom am ay appartement déedéet day fekk ñoo am seen i appartement xale yi màgg ami soxna ami njaboot am seen i appartement ci immeuble yooyu mais en même temps que chaque famille se retrouve mën a su ko neexee mu jaay ñeent ba juróom ba fukki appartement ci immeuble bi nga xamante ne moo ko moom li may wax nag du du gan ci réew mi am na Arabie Saoudite am na Dubaï aux Émirats Arabes Unis nga gis benn zone boo xamante ne ay famille traditionnelle ñoo fa dëkkoon ñu jël suuf yi ànd ak ñoom ci seen ci seen ndigal nag tabaxal leen en hauteur ñoom ñu am agence immobilière bu leen géreel seen immeuble li ci am ci koom par fin muy delluwaat seeni loxo ak loko li ma nar a samp ci lee mooy Dakar Financial Centre ngir kenn ku ne di ci gis boppam lépp ci intéret Sénégal pour man c'est capital que loolu war a sampu ci réew rawatina ay famille yuy màgg donc monsieur le maire maa ngi lay nuyuwaat encore une fois de plus di la wax ne sa jëw egsi na ci ñun ci sa taxawaay ci mbaax sa perspicacité ak sa taxawaay ak attention ci wetu population yi mu nekk lu ama am solo ci réew mi ñu ngi lay sant di la masaw aussi ci li nga xamante ne fan yi tege na seen kaw di ñaan yàlla yal na fi gëcc yal na yàlla may à nos autorités mu may leen ñu dellu ci xel mu sell ngir saafara li fi xew xam ne ñoo njaboote waa Ngor beneen bi nag mooy message bi may mujjee lancé mooy politiciens yi depuis 1960 ak léegi ñu am fi ñoom ñëpp ay suuf yenn saa yi ñu tëj ko les politiciens yi fi nekkoon temps wu ak temps wu Macky Sall ñu jël clôturer yi ñu dëkkee ya ca des ñu jël ko clôturer mais ngalla nañ ko jël delloo ko seeni borom soo amee kër am beneen boo tabax am beneen boo tabax def ko immeuble tëj ñeent ba juróom ngalla may ko population bi wax dëgg yàlla suuf su bëri si lan la ko nit ñi di doy et à si achat à des francs à à un franc symbolique parfois ñu jël leen rek daggal leen ñoom si seen i biir te kenn ñemewul wax ci réew mi soo waxee ñu sànk la soo waxee ñu boom la mbaa ñu génneel la fi benn dossier taxal la ba doo ba kenn ñemeetul wax ci réew mi état yàgg naa am ay secret ci ay kilifa ci réew mi mais am ba mu ko am dafa waroon méngoo ak États-Unis bi am bombe atomique mu nekk benn arme de dissuasion ñu bañ ko utiliser xam nañu ne am nañu ko mais dissuasion la war a doon mais su ñu jëlee tey jii tous les secrets que état am ci ay kilifa ñi ngi ut ay pexe di ko teg ci mbedd mi teg boobu ñu ko teg ci mbedd yi moo indi tey jii tout le monde est en colère léegi bi ñuy dugg monsieur le maire ci ci ci Ngor lenn rek maa ngi gis population yi sax ñi ni ñu xoolee cortège bi nga xamante ne ils ne veulent même plus que les autorités de la république di dugg si fi mais ndokk nag oto yi bi ñu ko xoolee Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nekk effigie bi ils ont compris que nous ne sommes pas de de l'État fi may daalee lay wax bi mooy wax la nous sommes de tout cœur avec les populations de Ngor maa ngi lay ndi sant Grand Jaraaf di sant imam ci dalal bi ngeen ñu dalal di ñaan yàlla seen taxawaay yal na ko yàlla yàggal ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam imaam euh, sa ñaan ci jamono ji du Ngor rek moo ko soxla Sénégal yëpp moo ko soxla ndax dafa mel dañu taxaw ci volcan bu bëgg yeewu donc ñu ngi lay ñaan nga wéy di ñaan jàmm ci réew mi ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di leen présenter la délégation bi ma àndal muy euh, de hauts responsables de la coalition jàmmi réew mi ñu ànd ak man ñëwoon tamit nga ngeen xàmmee ñu ngeen ñaanal ñu ci mission bi ñu yëkkati te duñ si dellu ginnaaw aussi incha allahu taala li ñu bëgg mooy que ñun ñu nekk ñi nar a conduire les véritables changement yi war a am ci dëkk bi à partir du vingt cinq février deux mille vingt quatre ki nekk ci bopp réew mi tànnul ki ko war a wuutu ñi mu àndal tànnuñu ñi leen war a wuutu kii tànn ki war a wuutu ki nekk ci bopp réew mi mooy sunu borom et il a été clair qul illahuma malika al mulki tuxti al mulka man tasha wa tanziu al mulka mimman tasha wa tuxizzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al xeer innaka ala kulli shay'in xadir su yemoon foofu sax dégg nañu ba noppi mais li tax nañu gën a dégg aaya bi mooy tuliju leyla fi nahaar wa tuliju nahaar fi leyl wa tuxrijul xayya min al mayt wa tuxrijul mayta min al xay wa tarzuqu man tashaau bi xayri xisaab moo tax ñu dégg ba ca kaw donc maa ngi lay sant imam di la gërëm alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yuxmin wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aw kàddu yooyu ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp te di leen di balu ak di balax ñëpp ñaan suñu boroom mu boole ñun ñëpp defal ñu njëggalam ak yërmandeem gannaaw njëggalam ak yërmandeem ñaan ko yàlla defal ñu ñetteel bi te ñetteel boobu boo gisee toujours su may wax moom lay ñaan ndaxte si la aadama yàqule ndaxte seytaan iblis xam na ne bu dee njëggal ak yërmande su loxol yàlla la ne mënu si dara fa mu mën a jaare maam aadama nag mooy lii ka yàlla bàyyi te teg ko si loo muy ñeente yi muy sañ-sañu liberté de croyance am bàyyi moom moo tax yàlla mu ne fa man shaa fal nga wax léegi yàlla moo ko bàyyi doomu aadama ne ko tu de gérer ta croyance wante nag ah naa si jiitu nag su fekkee am nga xel beneen bi mooy bàyyi ka liberté de pensée wante nag naa si jiitu allazina yaskuruna allaha c'est say xelaat ah nang ma si bàyyi xel bàyyi ka liberté d'agir mu di aw fitam mooy li nga wax léegi beneen bi nag mooy bàyyi ka sa liberté de choix moo tax ñeente yi yàlla bëggul ñu tënk si nit ndaxte maa ko si libéré te si ñeent yooyu nag di yàlla baaxee mu maam aadama si la seytaane fexe ba yàqal ko te yàq gi nag day fekk nag jiitaluloo sa borom ngoon moo tax toujours may wax yal yàlla jàppale ba si ñeent yii bu si ne ñu jiital si yàlla soo si jiitalee yàlla rek di noppalu ngoon nag si loolu laay wax yal nañu yàlla jàppale ndaxte ndimbali yàlla fi ne ñu ñaan suñu borom di la dalal nag comme ni nga ko wax si turi imaam yëpp si dëkk bi suñ ko waxee nag wax nañ ñëpp euh, di ñaan say tànk yi nga xam ne tànki mbokk la tànki dëkkandoo la comme ni nga ko waxee tànki jullit la ak mbokkam te yàlla wax ne yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waahida ba ila axiril aaya yaa dafay wax lien de fraternité yi nga xamante ne bii moom la doomu aadama yi bokk ba si jëkk moo la fraternité humaine donte am ngeen différence de croyance mais ni nga xam ne doomu aadama ngeen ngoon ku nekk war nga sax sàmm sa akki doomu aadama wa taqullah allazi tasaaluuna bihi foofu nag la dugal nag fraternité religieuse su fekkee ñoo bokk religion bokk pas-pas comme ni nga ko waxee nii ngoon nañ ko sàmmante ngoon si tànk yooyu lañ lay ñaanal comme ni nga ko waxee d'abord si acte bu rafet bii nga def à part sax si considération politique bi acte bii nga def ngir xam ne wax dëgg nag ñii samay mbokki doomu aadama lañu ñii samay mbokki jullit lañu ñii samay mbokki dëkkandoo lañu ngon nag suñu amee naxar si nii Mouhamed jàngale diggante ak yi dëkkandoo war naa sol sama dala ñëw masawu te ni nga ko waxee lii wax dëgg nag ku ku ko yëgoo ku ko yëgoo xam ne métti dal su ñun la xam nañ ne fa mu ñu toll nag ba tax na képp ku ñëw duñ si defal dañ day dañ day ñaanal di ñaan yal na yàlla barkeel tànk yi ah nga fi wax tamit si mébét te nit ku nekk nag am na mébét te juddit sax moo si gën a yey si am mébét juddit da nga am projet jullit danga war a am projet ala yaskun xiyaaman wa nag wa ala junubihim wa fi xalqi samawaati rabbana maa xalaqta haza baatila dinañ wax ne ñetti baat yooyu suñ ko traduire d'une manière interprétative la traduction coran ñette la et la traduction législationnelle si la ñuy génne atte yi la traduction littéraire si la ñuy génne naxu yi ak balaaxa yi yooyu kooku c'est littéraire beneen bi nag mooy la traduction la traduction interprétative du coran bu dee ñetti baat yooyu si daw asamaan ak suuf ñii ko wala valoriser moo ñi si toll am doole xiyaaman ndaxte kii am kii war a taxawaay moo di xale comme seen ñi nga xam ne yàlla meññ nañu tollu si waxu ko daan àndax dag ñi nga xam dem nañ ba jeexal nekk ay charge war a accompagner xale yi moo tax am réew wala ab gox ay xale duñ ko def ndaxam xale yi ñooy jiitu am motivation wante nag ne charge yi accompagner gunge leen waxalaa junubihim man si yeneen domaine nag walla ku si am wàll nag si xam-xam boo mënte ne nga ñëw accompagner ñaar ñi yu ne interprétatif nag donte nag xañ na beneen domaine nag mën na ki fiiri neneen ngoon nag ab dëkk nii lay doxe képp koo xam na am nga sañ-sañ yaakaar na si lii day war naa ko mën a def mu di projet de société ngir defar réew l'islam jox na la sañ-sañ nga ñëw exposé ko ñaar moo mën a am yàlla sax bu mu wax l'islam dana Muhammad exposé lii ma la jox wante nag fa man shaa fal yumin ku ko jàng nag ba mu doy la te mu gëm nangul ko ku weddi nag bàyyi ko fa innama alayka albala wante nag wa alina alxisaab ngoon ngoon projet bii nga am si réew mi particulièrement nag si ngor comme ni nga ko waxee ndaxte eh, jullit bëtam du tuut ñu ma ko waxee yàlla bu waxee asamaan ak suuf ëmb na lépp ngoon vision jullit dafa war a rëy warul des ginnaaw tamit si ñii war a valoriser li yàlla teg suñu loxo mu di asamaan ak suuf nit moo ko wala valoriser du jinne du dara ndaxte ñooñu fi jiitu xamuñu valeur bi bii doomu aadama ñëw nag la xam valeur bi yàlla jox ko naka gérer kon nag si loolu ñu ngi lay ñaanal ah projet yi nga am yal ko yàlla mottali yàlla mi nga xam ne ku mu jàppale nga jàpp yàlla rek in yansurkumullah fala ba lakum wante wo maa nasru illa min hindillah ndimbal daal moo li bii la yàlla def ndaxte yàlla du fi jox kon yàlla yal na yàlla jàppale si lii nga am si mébét te mu rafet lool yal yàlla mottali ko bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg di la ñaanal yal na yàlla sàmm wirgo gu yaram gi mm-hmm. ndaxte lu mante ne wér-gu-yaram moo koy def mm-hmm. yal yàlla sàmm xel mi yal na yàlla sàmm pas-pas bi ba ñii nga àndal ñëpp doy loolu ba jiital la si seen kanam yal na yàlla doolente mi ba lii nga am ñu ànd ak ñu jàppale loo bi mi yëpp yal na yàlla mottali ndaxte yàlla mooy mottali lépp wante nit nag am na sañ-sañ exposé ko suñu borom la si des nag mooy dogal comme ni nga ko waxee maalikal mulki lépp tuulu julee da fi nahaar loolu capacité bi yàlla rek moo ko am tuxurujul xayya min yàlla yàlla rek moo am capacité boobu kenn amu fa muy jaar nag ba jox la nguur nag kenn du ko fooge sax fa muy jaar nag bu fañ la nguur nag doo ko fooge toujours bi min bi xëyri laa yaxtasib mbiri suñu borom moo demee noonu yàlla dama ne du ordinateur bu ñuy calculer ay un plus un yàlla kenn nu ko jàpp ngoon da ngay am rafet njortu si moom wakkilu si moom mu tëj say mbir ngoon nag wàkki nañ suñu yàlla da ñaanal yal na yàlla defal la jàmm def ko si réew mi yëpp bi jaay Mouhamed ah tànk yi nga ñëw tamit muy tànk yéen nañu jàmmal yàlla ñu ko yàlla defal si gox bi lii nga waxtin si nëbët it ah ñi ngi ko adressé mi yàlla nañ ko dégg ba gën si taxaw ba gën a saxal jàmm ji bi jaay Mouhamed ah loolu lañ amoon wax dëgg kàddu yu nay wax di la jël seen yal na yàlla barkeel tànk yi yal na yàlla barkeel tànk yi yal na yàlla barkeel tànk yi mu di tànki mbokk tànki jullit d'abord avant sax tànk yeneen wante yooyu mu jiitu nag leen la si topp yëpp mën nañ ci si tàbbalaale kon yal na yàlla nangu bi jaay Mouhamed ñoom ñu lay gërëm di sant si turu bu ñu ko waxee nag imam yëpp nag ndaxte imam bi mag bu mu nga fee yàlla dafa def mu magal léegi añ na man def porte parole moo tax fu ñuy dem sax man lay yebal moom dang ñu ngi koy ñaanal moom tamit si turam ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla def jàmm bi jaay Muhammad ah loolu lañ amoon kàddu yu ñuy sànni yal na yàlla barkeel bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah la si des nag xëy na su fekkee xëy na maire dañuy ànd li si turu commune yëpp turu aada gi chef de village bi wax na ñu ko ñaan mooy suñu mag ah turu imam yi côté religieux yi wax na ah la ci des mooy turu administration nag mu ngi koy waxee nag dafay gën a dafay gën a yaatal mu ne wàllu koon bi yëpp ngoon maire ah ak kaddu gaa ngoogu yal na yàlla barke bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat ci yonentaam bu tedd bi di nuyu mbooleem ku fi teew yëpp di la nuyu di la di la ziyaar di la di dalal itam euh, ci fi nga xam ne euh, yàlla dafa def ne gan dañu ne yonent bi sax ko wax dama bi ko yàlla waxee ne ko gëm yàlla gëm yonent bi soo amee gan teral ko euh, te teraanga nag pour ñun ëppul béréb yi ndax ñun dañu jàpp ne loolu lañu imam jàngal béréb bu jàkk yi moom raw dul mën riyaadul janna tax na bu ñu amee gan dañu koy teeroo ci li ñu am mu gën a symbolique ànd ak kilifa yëpp di la dalal jàmm ci dëkk bi bu ñu sañoon day nekk yeneen circonstance yu dul yii ñu daje euh, xame ci neneen lu dul nii waaye lii moo soob suñu borom ñu lay wax ne sant nañ yàlla bu baax nag ko imaam waxee léegi nekk ay mbokk ci réew mi waaye ay mbokk ci diine itam am tiis bu dal suñu kaw nga bàyyi sa activité yëpp jóg ñëw massawuñu ñu lay sant bu baax ci loolu di la di la gërëm di sant mbooleem ñi nga àndal ñëpp di wax rek ne maanaam yàlla mooy toftale mbir yàlla moo dogaloon ne lii mënu ñàkk moom te bu amee lii dina ci sababu e, te bokk na ci sababu bi xame bi balaa mooy sori itam ni ko imaam waxee di di gërëm itam moom ñi nga xam ne ci ñoom la jaare ba ñoom fii bu dul woon sax cër bi ñu yor bu sama jarbaat la bu dul woon sax cër yi ñu yor boo jógoon pour seet sa ko moom mu ne ma ndijaay Cheikh Alassane Sène daf may seet si dinaa bàyyi li may def ngir moom ndax seq nañ ko ak ah, ci ci lu bëri nag ci lu bari di la ko di la ko dénkaat itam di la ko dénkaat bu baax a baax a baax a baax a baax bokk na ci ñi ah, li may xat-xat yëpp bu ñu ma soxlaa heure bu ñu ma a doon mhm. ci lu ñu ne dinaa leen ci fekk ndax eh, loolu lañ ñu loolu lañ ñu loolu lañ ñu ji ñoom ci taxawaay ak ñoom ma Aliou ak xale yi ci des ak ñoom Dip Samb ah, di wax rek ne mbir mi maam ñëw na ci léegi li ko lal yëpp mooy dañoo bëgg xam-xam dañoo bëgg yokk dañoo bëgg li gën am feneen mu am fii dégg sax ngay wax Dakar Financial Center boo demee London City cité boo xoolee ñu ko moom siège u cité bi ay famille cosaan loon dañee lañ ñoo ko moom ñu jël suuf sa gage ko jox ko cité tey bokk nañ ci ñu ëpp alal Angleterre parce que banque bi la muy génn ci xaalis dañu am ci dividende yi ndax la ñu njëkk fayeeku ca suuf sa dañ ko jënaat action réinvestir ko donc tey daanaka bokk nañ ci ñu fa ëpp alal donc tey yàlla moo defee suñuy maam tànnoon béréb bi yàlla da ngay maye ku ne fa nga tànn itam yàlla moo moom la soob ndax du du du du sàggante wala wala cuune ñële yàlla rek moo defee noonu ñun suñuy maam féetewoo fii yàlla def suuf bi am valeur donc tey ku leen mën a dimbali rek da leen di dimbali ba valeur bi ñu mën ko garder xam ko déjà dañu mën ko garder nga wax noonu wax dëgg yàlla xalaat yu yu am solo la ndax euh, mënuñoo dëkk rek ci xeex nag mënuñoo dëkk ci taal pëna mënuñoo dëkk ci sànni xeer war nañoo mën a dëkk comme ni ko imaam waxee léegi bu fi injustice amee ñu xool ban yoon la ñuy fexe ba injustice boobu ñu réparé ko waaye fexe nag bañ caa bañ caa tàbbeet kay fale coow la yëpp loolu la woon dañ fa bëgg lycée ngir xale yi jàngi ndax xale yi bu ñu jàngee ba xam rek am na lu moom da leen di da leen di wàcc nañ mën a demal seen bopp ah loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ah, bañ ci jógee itam xale yëpp jóg nañu wan ñu ne nañu bëggee ñoom ñu jàng ñoom itam noonu lañ ko bëggalee seen bopp nañu bëggee réew mi bu doxee ba am fu mu toll ci wàllu yokkute wàllu émergence ak lu mu mën a doon suñuy tudd doomi réew mi tudd doomi waa Ngor loolu vraiment mu nekk lu lu légitime ah, ñu ciy sant yàlla bu baax nag di la di la gërëm am na lu li nga gën a siiwee laata li mooy sa taxawaay ci bind ci yonent bi bu leen nit nag da ci yonent bi ñëpp xamee la ko ba ñëpp d'accord ci leneen loo tàbbeeti rek ah sëñ Babacar daan na ko wax suma jumul te bu fekkee amoo njëgu parfum da am am fullay boo seetee ka am parfum bu xeeñ bu foor nga dem toog ci wetam ma jàpp ni sëñ Fallou Diop daan na ko wax nee na bu fekkee dañ naan kii doomu diw la nee na te mënoo niinal kenn vraiment moom day xaw a doy wax ah ñu jàpp ne nag bu dee ne yonent bi nga siiwee ba ñëpp xam ko ah leneen loo yoreti am dina saf yonent bi xanaa ci lu ñu yaakaar et eh, di wax rek ne réew mi wax ko sànq nguur moom programme yàlla mel ni comme dund ak dee rek am na yu moom yàlla mayoo ci kenn moom teel na kaa régleel boppam yonent bi bi ñu koy laaj yu bëri da koy bàyyi muy tontu di wax jibril waaye bi ñëwee ci ru dañu ko non xoli ruux min ndaam di rek loolu moom nee leen sama yoon new si aw ma ci xam-xam ruux moom yàlla la moom nguur itam kan la yàlla yàllay fal ku muy folle nu mu koy falee nu mu koy folle loolu yàlla la sañ na ñooñu nag am mbébét mhm. te wax naa ko ci benn béréb ni nga koy waxee ñun dañoo judd ci liberté mhm. màgg ci mhm. lii itam bi ñu koy dénk itam jàpp naa ne loolu bokk na ci li gën a tax ñu dénk ñu mooy ne lu nu gis lu baax dinañ ko wax fu nu gis lu baax ne fa dinañ am fu lay jëli ko jox ko suñu waa ndax loolu la loolu la yàlla def ba tax na itam mbir yi itam dañuy wax chaque jour ne bu élection jotee ku ne sañ ngaa am sa programme ne bëgg naa waaye waa Ngor nañ am fu lay jël programme yëpp xool lan li ci arrangé réew mi dëgg na waaye itam ar nañoo am fu lay xool lan moo ci baax pour waa Ngor réew mi baax na waaye bu réew mi yëpp defaroo te Ngor defarul hmm. ah ay sénégalais nañ nag dinañ am mbégte hmm. Hmm. ndax coupe d'Afrique fu bale woon waa Ngor ñu ci waaye bañ jëlee coupe bi ñun ñëpp a feetu waaye bu amoon a waa Ngor daf ñu gën noonu la mel ci élection présidentielle yi ñëw képp ku ci am programme baax na képp ko ci bokk baax na waaye pour ñun boo indee faw ñu ubbi nag xool ne la ana Ngor ci biir lii loolu xanaa sañ nañ ko te loolu moom la ñuy dénk ñëpp di la gërëm itam ni nga ci amee xalaat tàmbali ci di ci xelaat ci mhm. la wax ne dinañ ko jël moo ko wax sa ginnaaw dama koy wax bi nga toogee ne li nga ci wax noonu dinañ ko jël bind ko mhm. di ci xelaat ñun itam ndax euh, loolu rek man du ma ñi ma xam ñëpp xam nañ ne nekkuma kuy waxtaani sax ay mandat bi di ñëw mhm. ku may xal dama naan dañ ma fal pour cinq dañuy liggéey pour cinq ans rek ndax loolu mooy mooy mooy mooy farate bi la cay topp suba yàlla rek xam la cay topp donc lépp lu ñu gis lu baax rek dinañ ko jël xelaat ci yaatal ah lii nga xam ne nag moo ñu fi tax a daje muy xale bi nga xam ne mu wàññeeku dafa dafa symbolique lool ci kaw ne xale la jigéen la te ñu ëpp ñu newoon ci biti daanaka ay mag lañ ay góor lañ waaye ku fekkoon berki dem bi ñu koy rob fii sa xol wax dëgg yàlla bu doon ne naqari woon de dina gën a naqari ndax circonstances yi na mu demee tam ñu jàpp ni sañ nañoo ñaan sunu borom ak ab taxawaay bu lu mel nii du amati képp ak ni ko yi imaam waxee képp ku ñu ci mën a jàppale bu lu mel ni du amati. mu jàpp moo gën fii moo gën ci réew mi moo gën fépp. wax naa ko ba mu xawoon andi ay polémique ne képp kuy ñëw ngor surtout ci période bi andi ñu jàmm. ndax xam nañ sunu dëkk fii bu fi jàmmal lawee tàmbalee fii day law ba wër ci réew mi yëpp. bu fi leneen lu dul jàmm amee fii day law ci réew mi yëpp. ndax loolu suñuy maam waxoon ñu teg ci suñu bët. gis ko xam ko. moo tax ñuy wax ne kuy ñëw rek indil ñu jàmm ku ñu àndul solution yitam ñu jël du pour defar suñu gox rek waaye pour defar suñu gox la wan ka ñu ci des ñu defaraale seen gox donc loolu ñu ngi la ciy sant bu baax di di la wax rek ne euh, waa Ngor gépp ci sama tur turu jaraaf ak turu imam sant nañ la gërëm la ci teewaay bi nga am bàyyi sa jot ñëw wu leen xale yi ca am ay gaañu gaañu itam dinañ leen ko jotal mm-hmm. ne ñëw nga fi wu leen ndax ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk njaboot gi sax njaboot lañ da ca nekk ñenn ñi say doom lañ say jarbaat lañ ndax Sénégal noonu la ko yàlla dogalee noonu la ko yàlla tëralee donc di la di la gërëm bu baax ci ci taxawaay bi di la ñaanal suñu borom yàlla moo amee mbir yi yàlla moom ku mu téye rek di nga teere yàlla rek moo yore mbir yi yàlla na yàlla jàppale la bu baax yàlla taxaw la bu baax maanaam circonstances yi mayewul yenn yi ba tax duñ ci sori waaye nga na la wér wóor rek ni nga ko ni nga ko remarqué yàlla mu ngor du sax man ngor gépp la bu dee quatre vingt bu dee damay faral di ko wax ñëpp mais Ngor bu dee cent personnes lañ peut-être vingt yi ñooy politique mm-hmm. ñi ñoo nekk fii ñi ne fële ñi ne fële quatre yi ci des yàlla bindoo leen duñu ay politique mm-hmm. dinañ xoolal seen bopp ba xam lan moo baax ci ñoom bu vote jotee ñu sol seen daal leen vote mm-hmm. delluwaat seen kër toog moo tax dina jafe trop nga ñëw Ngor jamono élection am fi nga gis fitna ñu jote seen biir ak yu ndax ña mu intéressé nombre bu ndaw la waaye bu jotee ku ne dina dem ak aqulaay taalam gis le baax mu def ko te itam ñun ci loolu lañ yi moo tax damay faral di wax ne aw ma sax sañ-sañ jóg taxaw ne nangam wala nangam waaye sañ nañ lu baax fu mu ne dinañ ko jëli ne ah gis nañ lii de lii de baax mm-hmm. leneen luñ gisati ne lii tam baax na ci nit ñi ubbi seen bët ngeen xool mm-hmm. te amaana incha allah yàlla mi ngi dogal nga am ñoo xamee mm-hmm. dinañ la gën a wax ñoom lan mooy ngor ni nga tàmbalee nag ñu la ciy encouragé bu baax di xelaat ay solution ci ñoo xam ne dañu ne ci jafe-jafe dëgg ñu ngi ciy sant ndax temps bi nga jël di xelaatal ngor mën nga kaa jël xalaatal keneen ñu ngi lay sant bu baax ci ci ci loolu di la wax ne yeneen xalaat yoo ci amati vraiment on est disposé vraiment accueillir ko jël ko xool nuñ ko mën a appliquer ndax ñun dañu bëgg suñu dëkk yokk rek dañu bëgg askan wi itam yokk xale yi ñooy suñu yaakaaru ëllëg wante ku ma gis nag da ngay fi xale laa mageewuma leen lu bari waaye ñun dañu jàppee ñun obstacle ya yañu yañu yañu ya ñu ya franchir wala ya ñu bloqué bu laajee suñu bakkan dinañ ko ci teg ba suñuy rakk duñu am jafe-jafe yooyu dinañ leen dinañ leen bayal tool bi dinañ leen xàllal yoon yi ba ñoom seen ëllëg gën suñu ëllëg ñun dinañ leen gunge dinañ leen épaulé bu ko laajee ak képp koo xam ne am nga yéene ci réew mi ak ci ndakaaru ak ci ak ci sunu dëkk bi ñu ngi lay sant bu baax di la di la di la wax rek ne dëkk baa ngi noonu am naa bu dee jot gi mayee nag naa yegg ci ci ci famille ma massawu leen jaale leen euh, di di di sant mboolem ñi nga àndal di di sant itam kilifa yi muy jaraaf ak imam wax dëgg yàlla ñoom rek doyoon nañ mhm. imam Omar bi may woo mhm. boobu maa ngi maa ngi gaare parce que bi ma ibu wooyee na ma ñu ngi ma ni ma ni kii ah man de wax dëgg yàlla lii laa programme woon mhm. waaye kilifa gu toll nii du bàyyi yitteem di ñëw ci dëkk amoon yéen a gis la ah kële moom mën naa ko gàntal waaye kii moom sañu ma ma ne leen dimbali leen ma rek ma écourté ko bu laajee suba itam ma dagg leneen sama programme ñëw mottali ko ma def ko ngir man la fay fekk ngir saafonte ak yow dalal la ci dëkk bi di la di la témoigner itam kilifa yi nga fi fekk mhm. ay kilifa yu baax ay kilifa yu tëddee itam di la wax ne itam liggéey yi li ñuy wax te mu siiw ci réseau sociaux yi mhm. ci bi mbir yi amee mhm. di la ko wax nga si la ko seedeel sa kanam ne xale yi ñu bëgg nañu bëgg caricaturer xale bu Ngor ak li am vraiment bokk xale yi ay xale yu am jàmm xale yu bëgg seen dëkk lañ xale yu bëgg seen avenir lañ xale yu am diine lañ kii gis nga boo gisee âge am imaam la gis nga xale la kee itam imaam la gis nga xale la donc dañu teel a jublu diine am fulla nag ci seen bopp dëgg yàlla dañu am fulla ci seen bopp mën nañoo muñ lu ne ci li yàlla digle ci ñu mën kaa muñ wax yàlla waaye nag am na lu nit bu fa tolloo dina am leen lu mu defee waaye tekkiwul ne loolu looloo jikkoom ñu am diine lañ ñu bëgg seen dëkk lañ ñu képp ku téye seen dëkk dañ lay téye noonu la leen yàlla bindee ñun ñëpp képp ku téye ngor dañ lay téye ku téyewul ngor nag mën nañoo am ak maandu wax dëgg yàlla bàyyi la waaye nag ku téye ngor moom dañ lay dañ téye te loolu itam mooy li am ñuy sant yàlla bu baax ci loolu di la sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom itam mu sàmm la waaye di sàkku itam nga ñaanal ñu ñaanal ki dem yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla xare aljana ak mbooleem ñu mu fa fekk gis nga ngor rek bokk na ci dëkk yu raar xam ne cimetière yi mu ngi ci digg dëkk bi dëkk yu bëri cimetière yi ci pegg rek la ne waaye yi moo ne nii jumaa bi moo ne nii gis nga gaara nit ñi fii lañuy jaar donc dee moom dafa nekk loo xam ne dañ koy dund di ko fàttali ko bés bu jot di sàkku itam nga nga ñaan ñaanal dëkk bi waaye ñaanal ki dem waaye ñaanal itam ay ay waajuram yàlla yàlla taxawu leen bu baax a baax baax di la di la gërëm itam ci turu jullit yëpp nag loolu sax bokkul ak lii waaye ci turu jullit yëpp yonent bi ku bind ci moom benn bayit rek farata la ci jullit yëpp ñu ne la ñu ne la merci donc boo ci bindee lu ñu toll ci ay téere ndax wax dëgg yàlla ñu ngi suivre mbir sant nañ ci yàlla bu baax yàlla na yàlla taxaw la bu baax yàlla na yàlla fay la yàlla na sàmm lu baax di di nuyu ak gërëm mbooleem ñi nga àndal ñoom ñoom ñëpp di di leen ñaanal sunu borom yàlla yàlla jàppale leen bu baax di gërëm itam ñoom Ibou seen taxawaay bu rafet bi ñu am gis ne kii de seen soppe la seen mbokk la ñu jaar ci moom ne ko kaay gisee ak sunuy kilifa kaay ànd ak ñun masawul ñu suñu waa dëng wax dëgg yàlla loolu ñu leen ciy sant ñoom itam bu baax di jégalu ci ci ci kàddu gi waaye mais lu ci dëng ñu koy ñu koy jégalu yàlla di leen ko di leen ko jégalu waaye mais lu ci lu ci baax itam ñu sant ko yàlla rek di di ñaan suñu borom yàlla yàlla dimbali ñu ba ñu am yeneen i ndaje yu dul yu dul yi mën a daje waat ci yeneen yeneen i mbir incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ci aaya bi mu waxoon sànq innal fadla bi yadillah innal fadla bi yadillah waaw inna alfadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu alfadl azim moo wax it ne ad'uuni astajib lakum dégg nga wax yonent bi tamit na ko ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ida da'ani dégg nga ila axiril aya moo ñu sant loolu yëpp nag te moom la ñuy ñaan bismillahi rahmani rahim allahumma inna nas'aluka bismillahi rahmani rahim اللهم إني أسألك بالألف ألوهيتك يا الله وبالهاء هدايتك يا هادي وبالميم ملكك يا مليك وبالسين سلامتك يا سلام وبالقاف قهرك يا قهار وبالكاف كفايتك يا كافي وبالحاء حلمك يا حلم وباللام لطفك يا لطيف وبالعين علمك يا عليم وبالياء يمنك يا يمن اليمني وبالصاد صندانيتك يا صمد يا الله يا واحد يا كافي أنت إله كل من في السماوات والأرض وأنت الهادي لمن فيهما وأنت الحكيم أعلم بمن فيهما يا هادي يا مؤمن يا مهيمن أجب يا هلق يا إيل اللهم يا سلام سلمنا من آفة الدنيا والآخرة يا قهار أقهر لنا عدونا واجعلنا قاهرين غير مقهورين كفنا شر ما قضيت يا كريم يا كفيل أجب يا حنشق يا إيل آمين يا الله. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطفنا وعلمنا الغوامض واعف عنا واجعلنا حنانا في قلوب عبادك واجعلنا إلهم أجب يا مثقي يا إيل اللهم يا مكون الأكوان ويا ميسر الأحسان يا مصور المصورات وسامك السماوات والأرض ويا منزل الأرض ينبت النبات ويا خالق الأرض والسماء أمت عدونا ويا شذول البطش أجب يا بيض قيائد وبحق هذا الأسماء يا الله يا هادي يا ملك يا سلام يا قهر يا كفي يا حليم يا عليم يا لطيف يا يمن اليمن يا صمد الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم تسليما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقيقة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين